Euh, ren jii daaw engagé woon nañ 600 éléments ren jii dañ ko dañ ko dolli boo bu 800 éléments puisque jémi daaw 500 éléments lañ joxoon daaw 700 la woon ren jii engagé 800 éléments parce que dañ ci dolli téeméer euh, donc éléments jémi yi ñëwoon daaw 500 la woon ñu dolli ci téeméer muy 600 euh, ay takk del yoo xam ne dinañu ñëw dimbali si nombre bi nekk fii fii am nañ environ boo bokk boole ak ASP yooyu donc muy 800 éléments 800 ci ci gàmmu yi ci gàmm ci gàmmu yi laay wax sax puisque gàmmu mag bi peut-être que mooy bu Medina Baay bi mooy gàmmu international mais am na aussi Kaolack yenn yenn fukk ak benn gàmmu yoo xam ne aussi même bés bi lay am donc gàmmu yooyu yëpp aussi ñun dañ fay assurer dañ fay déployer ay équipe pour ñu sécuriser gàmmu yi nga xam ne du am benn benn jafe-jafe donc euh, ci éléments yi ñu indi am nañ ci yoo xam ne ñu soltoni mooy ñuy wax police judiciaire ñoom dañu ñu appuyer ñi nga xam ne dañu gisal tëdd am nañ également ay caméras de surveillance am nañ également ren ay euh, ay drone drone mooy appareil yu ndaw yi nga xam ne dafay dafay naaw ci kaw ba pare survolé même motard yi xam ne ñu ngi doon dimbali ci circulation bi sax ren dañuy yokk benn motard donc am na ñeenti motard yoo xam ne ñoom ñooñu appuyé kilifa diine pour délégation yi ñëw waaw pour pour l' instant depuis bi ñu ubbee poste de police bi puisque 10 jours avant pour l' instant am nañu ñaar yoo xam ne jàpp nañu leen déjà que ñu ay sàcc loolu ay këf téléphone